xam nga euh, opposition bi moom day euh, defaale une pierre trois coups déjà euh, politiquement. Mhm. politiquement. Mhm. am na lu mu war a lijjanti. ci débat politique mooy comme li leen Amadou Ba jox jotoon a junj Amadou Ba l'ex premier ministre li mu leen jotoon junj loolu baax na mais en fait ñoom nekkuñ ci loolu dañ mel ni déjà ñoom dañoo xaw a tiit ci fa ñu toog xalaat ne xëy na bu buñ buñ dissoudre assemblée bi dootuñ mën a ci ñëwaat. Mhm. donc nañ jéem a fexe naka la ñuy téye suñuy post yaa ngi dégg Abdou Mbow dem ba ci ne le droit de dissolution nañ jéem a fexe na lañu koy génnee ci euh, constitution bi donc euh, loolu benn problème la beneen problème débat d'orientation budgétaire xam nañ kiñ ñu ko séqal mhm. gisuma ci ñooñu noonu ku mën a tant soit peu tenir tête Cheikh Diba sur le plan des finances mhm. c'est mënuñu ko ci benn côté mhm. c'est un esprit fin qui maîtrise les finances publiques te pare pare goo xamante ne ñoom leer na leen ne Cheikh Diba seen kanam jox leen orientation budgétaire ñoom mënuñu cee débattre. ok booy parcelle. bu baax borom xam-xam tigi xam nañ ko bu baax ñoom. donc du ñu duñu débat. Mhm. du ñu débat. donc débat d'orientation budgétaire mënuñu ko. ok dawaaleel foofu noonu parce que ndaw euh, euh, ministre la ci euh, gouvernement wu premier ministre Ousmane Sonko boo ñemewul ministre bi noo ñemee premier ministre bi. en ñoom ñoo ragal. ah da nga jàpp ne daw débat la quoi. mais xam nga ñii taxaw ne dafa amul projet moo tax ñoo ñu di wax loolu moom ki amul projet moo duma seen projet. Mhm. que Ousmane Sonko il a vendu du vent au Sénégalais le vent moom moo daaneel yéen seen bopp kon lan la xanaa poussière bu euh, polluer la. <laughs> <laughs> Ousmane Sonko li mu yor moo leen daaneel de loolu la Sénégalais yi jël. Mhm. loolu la Sénégalais yi adapté. et voilà l'incohérence de d'une certaine opposition notamment bu ñoom Moussa parce que. tu parles de Bougane. ki ki ki ne ki ne règlement intérieur bi baaxul ñoom bañuñu ko. Mhm. yow kay bu dee opposant une opposition constructive xanaa li nga war a njëkk a wax moom mooy defar leen loi bi. Mhm. parce que euh, Mass même boo jàngul mënal déglu. Mhm. bopp bu naree am barke ay nopp yu dégg ci sax léegi kon nañ dégluwante rek. constitution moo ko wax mooy ndeyu charte réew mi waxuñu règlement intérieur bi baaxul la. parce que il faut vraiment faire des amalgames pour parler de Amadou Ba bu dugg Pastef Guy Marius Sagna bu nangam les autres dispositions du réglement intérieur ña nga fa. li concerne premier ministre moo fa newul. absolument kon ça ne veut pas dire que ne l'intégralité du règlement intérieur baaxul. aspect boobu noonu bi permettre premier ministre mu dugg fa loolu lañu dindi ay la yéwén delloo ko mu jeex. te loolu moo gën a yomb bu dee da ngay mener une opposition constructive. alors ñoom. dañuy sonko sonko lu te xamuñ ni sonko def. <laughs> quand même parce que dañuy so waaw même le mot du fusil euh, ça vous dit quelque chose non. Mm-hmm. mais xamuñu ni sonko def. moo tax sonko sonko lu bi roy mag mënul roog pire aussi ça aussi c'est vrai man maa nekk génn original plateau penco bi maa fa toog. Mm-hmm. maa ngi toog ci plateau penco bi Bougane mu ni moom ak Ousmane Sonko ñoo fi incarné anti système kon candidat ba mu euh, joxoñ moom lay soutenir. Mm-hmm. maa nga fa. quelque temps après ndekete yow moment bi ngay wax loolu yow yaa ngi jàpp kooku fenkat la ñu jégal ma ci kàddu gi noonu la ko waxee alors ce qui veut loolu loolu lan lay tekki mooy soit xamoo li nga doon wax wala da nga doon euh, da nga doon nax sa bopp parce que sénégalais yi moom jël nañ seen choix ba pare leer na mais yow mi nga xamante ne yow yaa ne woon lii ngay soutenir man ma fekkee ko sénégalais yëpp di ko dégg après nga dellu si waat ne loolu amul woon man li ma waxoon ne damay xam nga nee na usman Sonko dafa war a dem parce que sax surseur d'orgueil la war a doon ok d'accord y a pas de problème bu ñu la waxee waxu fisc kay surseur d'orgueil génne lépp. ñu waxee waxu. fisc surseur d'orgueil génne lépp teg wax nangam lii laa yor waaye ñu la wax la fii nga naan maa ngi gérer ñaata milliards dem naa fële en fait xam nga euh, politique pour nga yegg si ci fii euh, Ousmane Sonko yegsi du du du mbirub dënn du mbirul imposer ay dualité non moom bi muy jàkkaarloo ak président Macky Sall ba imposer dualité boobu ce sont par des idées la ko doon defee. Mhm. mais pas par euh, méthode bii nii méthode bii nii baaxul. Mhm. au contraire day tax sénégalais yi sax minimum de kii bu ñu la joxoon dañ koy dindi. parce que man man man man man man képp ku loon attaqué Bougane damay taxaw parce que wanewul lool loolu dama jënd kii anti système la woote. Mhm. jëfee ko ñu gis mu ciy dox ba léegi mosul dindi mais fi mu toll nii. mais euh, force est de reconnaître mais li sénégalais yi doon wax kon alors dëgg la il n'est de sa personne. bu dee Sénégal moom moo la ñor un projet boo xamante ne trois mois kii fait face à un système boo xamante ne installé wu na fi pendant 64 ans 64 ans nga bëgg ci trois mois ne nañ ko euh, andil ay résultats léegi léegi léegi léegi mais loolu euh, saa waay euh, mënut a nekk. te opposé wu pour opposé wu wala bëgg a fës pour bëgg a fës. comme si lépp loo xamante ne tey jii nii ñu ngi koy wax sonko sonko bi foog mu doon bugaan bugaan léegi léegi léegi léegi mënut a ne mënta ne donc donc mais est-ce que Bougane am na droit. day mën a dem après da ngay. da ngay arrogant mooy ce qui ce qui a changé. nekk Sonko mais xam nga ne tant que Sonko mu ngi exister yow munoo nekk Sonko donc da ngay jéem a ut mécanisme pour bëgg a Sonko pour doon Sonko xam nga loolu du mën a nekk. léegi tey jii ni yow barki démb yaa ne moom ngay jàppale ci diggante bi dara xew fi nga ne noonoonoo non dañuy xaar deuxième tour en man dama foog ne dañuy tooñ wàllu parfois xam nga euh, local. Mhm. dem ba fa mu war a sottee kenn xamul fa jaar ñu dem législative yeewi askan wi ñëw taxaw nga ne non problème mu couleur couleuru Pastef couleuru nangam kon ñii. seen bopp lañ gën a yëg yëguñu génn def sa coalition tuddee ko sa propre mouvement. xam nga incohérence boobu noonu. mbir ma dem bay waaj a sotti nga boddeeku waat jaar continuer di xeex de ñoom dañ xeex de je d'accord que euh, tibb nañ tànk def nañ lu ne dem ba mbir mi di ca cappaandaw ba nga ne yaa ngay xaar deuxième tour. xam nga Moussa bu toogee ba tey jii nii di xaar deuxième tour c'est normal que mu mer. deuxième tour bi ñuy xaar dafa sori. deuxième tour kañ la. deuxième na je pense. non xëy na euh, non yeneen yi élection kay la ñuy wax. deuxième tour amul ci bii ni nga boog jàpp ne léegi yow ki xañ deuxième tour bi muy peuple sénégalais moom daa am lu mu def le projet dont il est question euh, wax na lu garaaw nag lu garaaw a garaaw mu ni moom dafa euh, Bougane dafa jël teleem ak ay ay kiiwam jox ko Ousmane Sonko pour jàppale ko moo tax ba mbir yi kiiwee ñu tëj ko mm-hmm. kon donc ñoom seen télé. ak i kii dañ koy politiquer. Ah, loolu la wax seen i kii moom moo ko wax man waxu ko donc kon ñoom dañuy utiliser seen i organes. Mhm. pour des combats politiques. nee na li tax ñu tëjoon des médias moom mooy dañ ko jébbaloon Ousmane Sonko. Mhm. dañ koy jébbal dëgg ak askan wi. kese or amul benn yoon koo xamante ne yow am nga télé am nga parti politique télé bi war di nekk au service euh, d'un engagement politique du yoon. donc kon ça suffit euh, li fi ne parce que euh, Juan Branco. di wax ci Mbappé nga jël ne ko ràbb ala une foog ne Sonko lay waxal waaye di woo. <laughs>